camion boo xamante ni 31 juillet bii passé ay nit ñoo xamante ni dañu tas car oto bi chauffeur bi mu ngi fi taxaw si suñu wet ñu car ko menacé ko wàcce ko oto bi taal oto bi loolu nag mu nekk loo xamante ni lu loo xamante ni ñun ñëpp ñu ngi koy ñaawlu ñuy wax askan wi rek den xamal ne leen li ñuy def lépp si ñun lay jëmaat ndax réew mi liggéey moo ko yóbbu fi mu jëm comme réew mi liggéey moo ko yóbbu fi mu jëm dama jàpp ne ku fi mën a ñëw liggéey rek moo tax réew avancé te te liggéey bi mënul taxaw comme liggéey bi mënul taxaw nag li ma jàpp mooy dañu war a continuer liggéey leneen li nga xamante ni mooy régler problème kenn ku nekk fa nga sa war a def nga taxaw sa nga régler ko. port de Dakar nag dafa nekk benn lieu boo secteur boo xamante ni secteur bu am solo si économie réew la may wax ne comme réew mi dañu gëm ne liggéey moo ko yóbbu fu mu jëm nañ bàyyi nit ñi ñu ànd liggéey ñiy def politique ñu nekk seen politique. mais politique mën nañ ko def de façon respect et responsable mooy ñu nit kenn ku nekk li nga war a laaj nga laaj ko at na nga koy laajee.